bismillahi irrahmani irrahim mbokk yi asalaamaaleykum wa wa barakaatu nu ñëw ci sunu ñaareelu jotaay di asalafu ma alquran dimas gi weesu ñu nekkoon di fàttali alquran fu ñu fekk waaye ak fu ñu yóbbu ak lenn ci laayat yi nga xam ne ci borom téere borom bi subhanahu wa tey nag ñu dugg ci jàngaleb yonent bi sallallahu alayhi wa nan la ak lan la denkaane ci dundoo alquran al karim sax na ci téere ki nga xamante ne moom mooy saxiix ibnu xibbaan ibnu xibbaan mu nekk xadis abi shuraih nga alxuzaayi nga xam ne xadis boobu ñëwee na ci ay baat yu xaw wuute waaye day tekki wéruk xadis gi saxaabi bi radiallahu anhu dafay nettali mu ne xaraja alayna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am benn bés mu fekk ñu ñu toog rekk yonent bi daal di génn bi mu génnee ñun ñu ngi toog fa qaal mu ne ñu abshiru wa abshiru wa fi riwaaya abshiru abshiru yonent bi ne ñu bég leen bég leen kon mbokk mi yow mi di seetaan bégal bégal yonent bi moom moo ko wax du man saxaaba yi nee nañ dañoo toog parce que daaru xadis yooyu su ma ko gisee damay kontaan xoolal xéewal ki leen yàlla may ñoom saxaaba yi radiyallahu anhum ñu mën a toog yonent bi daal di ñëw dugg si ci seen jotaay yi اللهم لقد حرمتنا رؤية النبي والعيش معه في الدنيا لا تحرمنا هذا في الجنة يا إله السماوات والأرض yàlla xañ nañu ko ci àdduna ndax fekk bokkuñu ak moom jamono yal nanu yàlla may nu toog ak moom ci aljanna yal nanu yàlla boole ak moom ci aljanna insha allahu taala saxaabi bi nee na yonent bi dafa génni ne leen abshiru wa abshiru bég leen bég leen kontaan leen ban mbégte la leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam andil mu ne leen alaysa tashhaduuna an laa ilaha illa allah wa anni rasulullah xanaa nekkul la yéen ñii yéen ñëpp yéen a ngi seede amul benn buur bu yeeyoo jaamu ci dëgg ku dul yàlla buur bi subhanahu wa taala te yéen ñëpp seede ngeen te dëggal ne man yàlla moo ma yónni qaalu naam saxaaba yi ne ko axakay ah, yow ki yàlla yónni qaal yonent bi ne leen inna haadha alquran naka alquran gii allahu akbar kon na képp koo xam ne yaa ngi téye alquran ci sa loxo wala yaa ngi koy dund déglul xadis bi mu ne inna hada alquran naka alquran sababun aw buum la boo xamante ne ab corde boo xamante ne tarafuhu bi yadillah benn cat li mu ngi ci loxo yàlla yàlla moom moo ko téye wa tarafuhu bi aydikum beneen cat li nag mu ngi ci seeni loxo kon alquran buum la goo xamante ne dafa mel ni yàlla ci asamaan daf nu koo yoor bi mu ko yooree moom mu daal di koy téye te lu yàlla téye xam ngeen ne dafay dëgër waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu xoolal ca laaya gala muy dëggalaat ngoy leen ci buumu yàlla bi bu taqali ko mukk réew mi ñëpp pour ñu ànd alquran rek moom moo ko man kon nañu gën a naatal gën a yaatal li nga xam ne mooy jotaayu alquran yi yonent bi nee ne buum la goo xamante ne cat li yàlla moo téye beneen cat li wa tarafuhu bi aydikum beneen cat li nag mu ci seeni loxo yéen waa ahlul quran yéen ñi topp jotaayu alquran waaye di góorgóorlu ci alquran mu ne fatamassaku bihi jafandu leen ci jàpp leen ko bu baakha baax ndax su ngeen ci jàppee fa innakum lan tadillu wa lan tahliku ba'dahu abada su ngeen jàppee alquranul karim japp ci buum gi du ngeen sanku te du ngeen alakum mukk ci ginaawam fek yéen nga japp ci alquranul karim kon tay ji jamono ni mu wote kat yek ñi nga xamne ñoy ñooy kat yi bari nañ lool rawatina ba ci rew mi kon kep ku ci bëgg muccu jafandul ci alquran al karim di nga texe adduna ak alaxira mbokk yi xadisu anas bun malik radiallahu anhu qaal anas nee na qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam doy na yonent bi nee na inna lillahi ahlina min annaas yàlla am na famille ci nit ñi tey jii nit ku nekk am nga famille mën nga wax ne xeet sàngam nga yow famille sàngam nga fee nga bokk yàlla suñ ko doon askanale ci nit ñi su doon bokk tey jii am na ñoo xam ne ñoom la yàlla di bokkal yonent bi moom mooy wax ci lamiñu anas bun malik moom mi ñu ko nettali radiallahu anhu qaalu ya rasulallah saxaaba yi ne ko yow ki yàlla yónni man hom ñan ñooy njabootu yàlla ci kaw suuf yàlla su wàccoon ci kaw te ci ñan lay bokk qaal yonent bi ne leen hum ahlul qur'an yàlla su ñëwoon xam nga ci ñan lay bokk muy ahlul qur'an muy waa alqur'anul karim ñooñ ñooy ñan ahlullahi wa xassatuhu ñooñu de ñoom ñooy njabootu yàlla te ñoom la yàlla jagoo ñoom ñooy ay jege ñaaleem allahu akbar xassa baatu xassa tey jii yàlla bur bi subhanahu wa taala su doon bokk ci nit ñi tey jii wala nga doon classifier nit ñi am fooy féetale yàlla bu ko féetale ci benn sant yàlla santul sant sangam doo ko santale benn sant tey jii soo ko doon classé wala soo doon bëgg yàlla ci ban parti la yàlla farul ci seen parti yooyee xam nga ci ban parti la parti ahlul quran yàlla ci waa ahlul quran lay àndal kon tey jii loolu rek doy na ku nekk fexe jéem a góorgóorlu bokk ci waa alquran ña koy jàng wala ña koy jàngale wala ña koy jàng di ko jàngale wala ña nga xam ne bëgg nañu alquran di ca def seen alal di ca def seen lépp loo def ci alquran doyul loo def ci alquran doyul mbokk yi ci xadis bu wér ba léegi muy xadisu abi hurayra yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee ne yaji'u saaxibul qur'an yawma alqiyama ki nga xam ne moom moo bokkoon ci ñooñ alqur'an doon ko jàng wala di ko jàngale wala di ko jàng di ko jàngale di ca def alalam waaye di góorgóorlu di ko jëfe ki nga xam ne fexe na ba bokk ci waa alqur'an yonent bi nee ne bu yawma alqiyama sunu ko woowee yaji'u saaxibul qur'an yawma alqiyama waaw ki nga xam ne moo bokkoon ci alqur'an ki doon toppatoo alqur'an di ko jàng xam nga alqur'an dafay xàmmee nit waaw léeg-léeg ñu présenté la nit nga ne noo kii xaw ma ko wala xàmmeewu ma ko واي القران كتي سغتولتا دا فلي خم خميلا تي بيوم القيامه نوني لاي واخو با تي يو يونتي بي نينا فيقول القران القران دا تخو يوم القيامه يوم يفزع الجميع الشيخ وطالب الكبير والصغير الرجال والنساء بس باغا خمني نيباي تيت نيباي جاخلي دا ngay تيت فك سيرين تيت دا ngay تيت فك سا ويور تيت كين دوتال كين يوم يفرغا كين دوتال كين waye fofé nga xamné fa ngay jaxlé jakkar lo safaray takk alquran daal di ñëw daal di waaxu ba ñëw taxaw ci loxo andi la ci kanamu borom bi mu ne yaa rabb yow yàlla xullahu yàlla décoreel ma kii waay xullahu yàlla sañsel ma ko yàlla solal ko dama bëgg nga décoreel ma sargal ko fa yulbasu taajul karama ñu daal di koy solal mbaxane bu rafet bu wuuteeg sama mbaxane bi taajul karaama ñu décoré ko mbaxane boo xamante ne su duggoon ci àdduna tey di jant bi dafay làqu jant bi dafay fay ndax leeraayu yi mbaxane boobee mbaxane wurus mbaxane woor ooru aljanna fa yulbasu taaju karaama ñu daal di koy décoré mbaxane la xam ba nga xam ne mooy mbaxane teddange alquran doolul de summa yaqul alquran ne wat yàlla yaa rabbi yow yàlla zidhu zidhu dolli ko alquran ne yaa rabbi zidhu yàlla dolli ko fa yulbasu xullatal karama yàlla daal di lay solal la nga xam ne moom mooy alxulla mooy lépp loo xam ne dañu koy teg ci kaw yére pour mu taaral ko mën nañ ko tuddee mooy abba yeeg yu mel noonu mooy euh, manto manto yu taar la xam ne mooy mantoy lan nga xam ne da nga koo yeeyoo mantoog teddange inchaa allahu taala solal nañ la mbaxane bi solal la manto bi nga xam ne mooy mantob aljanna thumma yaqul alquran bàyyagul borom bi subhanahu wa taala alquran moom mooy wax yowm alqiyama bis ba nga xam ne ca la ko ñëpp di soxlaa mu ne yaa rabb yow yàlla irda anhu yàlla du bëgg nga gërëm ko allahu akbar yàlla su la gërëmee la mere xam ngeen lan tekki yàlla gërëm ko yàlla su la gërëmee aljana ngay dëkk nga wér dootoo wéradi nga am dootoo ñàkk nga féex dootoo am stress yàlla gërëm la nga dugg aljana dootoo fa génni xaalidiina fiihaa allahu akbar ya rabbi alquran yàlla irda anhu dam bëgg nga gërëm ko fa yarda anhu rabb yàlla du bañal alquran dara fa yarda anhu rabb yàlla daal di lay gërëm ci saasi fa yuqaalu lahu ñu daal di wax ki nga xam ne moo doon jàng alquran iqra allahu akbar jàngal ñu jox ko téere ne ko jàngal alquran warqa na leer ne saa yoo jàngee dafay mel ne yàlla daf koy taxawal ci loo xam ne dafa yéeg mooy essencer yooyu ha yu aljana warqa ngay jàng affaire ba yéeg ak moom pour lan mu ngay dem fan ay darajaam ca aljanna ay darajaam ca aljanna muy gën a yaatu di gën a jëm kaw wa yuzaadu bi kulli ayatin xasana aaya boo jàng rek ñu daal di la cay dolli la nga xamante ne moom mooy yiw ñu daal di la cay dolli la nga xam ne moom mooy kawe mbokk yi lii rek doy na jàng alquran ki gën ci nit ñi tey ji yonent bi ne xayrukum ki gën ci Sénégal ki gën ci àdduna ki gën ci Afrique na ku nekk xool xayrukum ndax ci parti ba nga bokk la wala sant boo yor la wala noo mel la wala yëre yoo sol la xadis bu wér kenn ci di ko weddi yonent bi ne xayrukum man taallama alqur'ana wa allamahu ki gën ci ñun ñëpp mooy ki jàng alqur'an waaye di ko jàngale nañu góorgóorlu bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo gën mbokk it lii moo nekkoon suñu ñaareelu jotaay ci asalafu ma alqur'an ma ngi na nañu doon dundee alqur'an yàlla nu yàlla dundal ci alqur'an يلا جيل نيو ادونا تي اك القران يلا ديكل نيو يوم القيامه بول نيو تي نيو القران با نغنيل كي يلا تي بي حديث بي يلا نكو ام يوم القيامه ما كان من صواب فمن الرحمن وما كان من خطا فمن نقصان صلى الاله على النبي وعليه ما لا بام ملبين او تهلل محرم